Bienvenue sur di Vision. dem vaar waaye jàpp naa ni vaar du doy waar ndax moor xobar xobar anti stress mooy suñu waar euh, fii nga xamante ni mooy Salam Vision fii nga koy viwee nee naa la yow mi bëgg kontaan reetaan mel ni ku ñu coxotaan si poxotaan leer na jaara bu sa borom poroxaan dee ko vii dee ko cons fii nga xam ne mooy Salam Vision del abonné del aimé del commentaire ragalul dara nee naa la ragal du dëkk géejawaay ragal du juddoo géejawaay màggee Grand Dakar yoroo fi nga xamante ni mooy Grand Yoff jàngee Grand Médine quartier 4G laa jaar moo tax sama piis su téléphone 4G la du ma ragal ak sa ratel mu mën a doon ay te mu ngi noonu mool xobar xobar nee naa la xale jigéen ñi ndeysaan samay xarit lan man damaa bëri pax lu ne dama koy gis foire internationale bi passé bu dakaar bi ay waay jile façon boo xalaat nga fay gis mais lan moo tax yenn xale yi jigéen ñi li ñuy li li ñuy xeeñoo duñ ko diwoo maa deseg benn xale bu jigéen yow xam nga man dama am fit yow elle est et respectée <laughs> xale bu jigéen bi mel na ni mu war a mel yow taaru na jekk na mais ndekete ngaaka la loolu nan nan benn nan te moom a gënal téeméeri ngaaka mais xale bu jigéen bi boo boolee téeméeri ngaaka yooyu yëpp mooy benn ngaakaam ak ak kon de xanaa ngaaka na xale bu jigéen bi maa ko interpréter wax ak moom xool ko mu xool ma ma ne ko fils je xale bu jigéen bi suur yit sama xol bi sedd yow ma yaakaar ne danaan ma moi aussi mu ne ma ndee la ma xaw a découragé ndeka xale bu jigéen bi ngaaka la yow gaa yi di rang di jënd lu lekk xale bu jigéen bi ñëw taxaw boobu gaa yi popcorn lañ doon jënd xale bu jigéen bi ñëw fekk ciy jaay popcorn ne ko ça va siwo popcorn yi ñaata la waa ne ko siwo popcorn jaay ma ko de pot popcorn laa jaay mu ne ko fatay benn la poids yi ñaata la mënoo ko 500 lay jar mënoo ko jaay ma mais bu si def kaani dama am estomac ànd ak popcorn nag am kaani xale bu jigéen bi ñëw na taxaw si fast food bi gis gars yi di jënd benn xale bu jigéen bu sarbantu jóge fee ne ko garan mën naa xool mën naa xool sa moni bi waa ji na ko garaawul moni bee ngi xale bu jigéen bi dégg moni rek ñëw na ko garan moni ñaata lay jar mais lan moo tax ngeen li ngeen xeeñ du ngeen koo diwoo yéen xale jigéen ñi ay ngaaka ngeen waaye man sama dëgëru fit maa ko gérer interprété ko doxaan ko yow ku ne xam na ne foire bi c'est décembre bi la may waxtaan ak moom ne ko mais boy décembre bi dama la bëggee a invité de ma dama ah, décembre bi mën na nekk kay ban weer lay tombeel taxul ma découragé ma ne ko ok ñu ngi si weeram mais 31 décembre laa lay invité mu ne ma foo muy invité ma ne ko resto mu ne resto moom fan la nekkee ma ne ko non resto mu ni fépp mu ne xam nga rek resto moom ñu fay def ma ne ko resto non rek mooy loolu dañuy dem grignoter mu ne ma bonne heure ma ne ko ay vingt et une mu ne ma <laughs> c'est que damay tardé reer xam nga resto dafa sori ku la invité resto kay dina jox reer. ma découragé si xale bu jigéen premier janvier laa bàyyi xale bu jigéen bi sénégalais jël benn terme bala may dee ku ne taxaw naan mboojo mboojo yee seen xam ngeen ni yëpp ay mbojo mbojo lañ yow yaay taxaw naan mbojo mbojo seen baay ñëw na kon yow jàppal na yow yaay bàyyi mbojo mbojo yi yow mbojo mbojo bu ganda bi nga yow lan moo tax bu ngeen wax bu ngeen xalaat yéen sénégalais politiciens yi nee nañ mbojo mbojo yi seen bàyyi ñëw noonu kon politiciens yi ay mbojo mbojo lañ parce que ay bàyyi mbojo mbojo yi bàyyi mbojo mbojo mbojo mbojo la mbëri yi ay mbojo mbojo la yéen tamit kon yéen ay bàyyi mbojo mbojo yi ay mbojo mbojo ngeen man moo tax sénégalais bu ngeen wax du ngeen xalaat ay ca bërgi dem moo njaay ku ne xam na ni koo xool si STM Instagram WhatsApp Snapchat Facebook foo dugg YouTube ñu ngi naan Aliou Cissé baal ma ak Aliou Cissé baal ma ak Aliou Cissé baal ma ak nee naa leen Aliou Cissé yorul équipe nationale équipe nationale yóbbuwul Aliou Cissé Papa Ndiaye coppet lan yóbbu parce que Aliou Cissé dafa taxaw osé bay bëgg a dee contrat am jeex mu ne da koy renouveler ñu ne ko da nga koy renouveler mu ne waaw dama koy renouveler parce que dama leen di jëlal Coupe d'Afrique bu ma leen jëlalee Coupe d'Afrique qualifié leen mondial Macky Sall na ko kon nag man kaay ma ma leen ma ni ngay renouveler coupe wala bopp nit Aliou Cissé xaw a ñu bëri dañu yaakaar ne Aliou Cissé moo nekk Cameroun nekk fa de Papa Ndiaye coppoon moo fa nekk balaa ngeen rek weddi li may wax na tekki masque bi bu tekkee masque bi rek ngeen dégg wooy saraxasa sa ban ca wayaay wune da ngeen <laughs> ay ca nee naa la ginax la géré par la la montagne mu ngi noonu ah ay ca Salam Vision lay xewee saa su ne waaye nag di ngeen gis beneen xobar xobar ak seneen comme que ginax la ki ma tiimoon daam la mu ngi noonu waaye damay nuyu bu baax a baax a baax ki nga xamante ni mooy yan ji bren sama doom yaay eh, Fatou <laughs> Fatou yo si jaajalaatu way way naa yo si jaajalaatu ayca mu ngi noonu dama ko doon may ki nga xamante ne mooy doomu Grand Yoff boobu ah bu coow la bëree doo ko sa dégg waaye bu jot ja bëree nga dégg ko sa kooku mooy Malick ah séeri ndey may sa baayu Clara mu ndaw ah, bàyyi baayu nday màgget macha allah yàlla sa jàmm yàgg doomu nday dam doomu nday ki nga xamante ni mooy la borom Mbàkke Balla Ndooy ay ca Malick maa ngi lay bëggee bu coow la bëree kenn du la dégg waaye bu jot la bëree ñu dégg la sama nit nga fii laa la def dama laa bëgg da ngaa gaaw ñaaf